dafa doy sëkk dafa doy sëkk ay politiciens matuñu sax junni jël askan wi en otage lu baax ñu def seen poche te bu askan bi nekkee ci coono ñu taxaw di leen seetaan loolu dama ko nar a dakkal bu ma yàlla joxe nguur le 24 mars 2021 bu ñu toogee ba waxtu bi ñuy wax ay inondation ci biir Ndakaar di ko wax ci Grand Yoff loolu day wane ni tappale bi bare na dama leen di jox exemple bu simple bi nga xam ni soxlawul doon ingénieur pour comprendre ko exemple bu simple mooy fële ci ville ville ville fa nga xam ni fa bi nekk est-ce que bu tawee day inondé du inondé monté monté ay ingénieur ñoo defar foofu ba bu ndox mi wàccee lu mu bare bare buñ ci tegee ay minutes ndox mi dem yoonam lii wàcc ci ndox ci Grand mooy wàcc ci ndox fële plateau te plateau du taal kon li war mooy def liggéey bi war foofu nga def lu nu mel fii def ko lu nu mel fépp fuy nit di dëkk bu ko defee ndox bu wàccee mën a dem yoonam bu mi néewee concentré ko def ko ci lenn mu baax moo gën que nga koy tas di ko def ci lépp te dara du ci baax amul sens nanu construire étape par étape mais sûrement ba nga xam ni loo def doo ci dellu si le secteur informel jaar-jaar la war a doon pour jàll ci secteur formel organisé et puis créer beaucoup plus de ressources, puis créer beaucoup loolu ci projet yi ñu am bu ñu yàlla joxee réew mi képp ku nekk secteur informel ñu identifier la ci benn domaine mu wér boo ñëwee accompagnement bi état war am dina ko am sa wet pour génne la le plus rapidement possible de l'informel pour amener le vers le formel ñoo ngi leen di saluer di leen encourager ci jom bi fulla bi bëgg liggéey bi bëgg Sénégal bi nga xam ni gis na ko ci ku nekk ci yéen ak domaine boo mën a ne muy mécanicien bi di menuisier bi di képp ki nga xam ni yaa ngi xëy nekk ci secteur informel bi gis nañu sa taxawaay ku lim juum seen net yi dafa ni jaale ma ci benn mu yóbbaale